muy nag kii di Ousmane ñu daal di ko boole ci liste candidat yi nga xam ne dañuy dem ci joŋante ngir parok njiitu yu ñu dëgmal moom commission wu dialogue bi rek njortees ne date bi de di le 2 juin gi ñu dëgmal mënees nañu caa amale élection présidentielle yi fii ci réewum Sénégal maanaam daal bu nu sukkandikoo ci seen i kàddu seen yéene ak seen proposition mooy rek élection yi ñu daal di ko amal ni ki le 2 juin. muy proposition boo xam ne nag kon faaw ñu xaar am approbation kii di njiitu réew mi Macky Sall waaye tamit bu conseil constitutionnel ngir rek mu mën a nekk loo xamante ni dina antu mu nekk benn suggestion boo xam ne rek def nañu ko ci dialogue national ba doon amee ca jam ñaajo te kii di Ismaïla Madior Fall doon ko jiite ci jamono joojee nag bokk na ceex yeneen recommandation yoo xam ne def nañu ko moom njiitu réew mi Macky Sall muy nag muy woy di des ci bopp réew mi Euh, gannaaw bu ñu weesoo le 2 avril nga xam ne ci la nguuram war a jeex ba keroog rek ñuy installé ki nga xam ne moom la askanug Sénégal di tabbee ci élection yooyu ni ki le 2 juin gi ñu proposé bu fekkee rek mbir ma daal dinañu koy validé ngir jëmale ak ngir indi ak tontu nag ci proposition bu nu mel moom président Sall dafa wax rek ne bu bu conseil euh, bu mandat war a jeex rek ni ki le 2 avril dina saisir li nga xam ne. moo di conseil euh, constitutionnel ba xam nag euh, ban xalaat la ñu ciy am ci ana lan moo war a nekk ëllëgu 2 avril ci bopp réew mi fii ci réewum Sénégal moom sax gannaaw bu mu rek sukkandiku ci article 36 bu constitution rôle bu conseil constitution nag kon dina nekk conseil constitutionnel dina nekk lu crucial maanaam lu am am solo euh, ci contexte bi nga xam ne moom la ñu nekk ndax nag moom moo war a tranché ci possibilité wu ki nga xam ne moo di njiitu Macky Sall wéy di organiser élection yi wala sax su fekkee moom mi de dafay daal di rek jël kii di président bu assemblée nationale daal di ko installé muy Amadou maam Diop ngir nag moom mu wëyal li nga xam ne moo di euh, mbir mi ngir fexe organiser élection laata ñu yegg ci lu mat ñett ci ay weer mu nekk nag benn dimension supplémentaire ci nag réorganisation bi jëm ci réintégration wu ay candidats bokk ñu ñu gis disqualifié woon bokk ca kii di Karim Wade ak Ousmane Sonko eh, ci course présidentielle boobee loolu nag perspective la boo xam ne jugee na kon waaye nag jur na ay division eh, ca ña nga xam ne ñoo bokkoon ci dialogue bu ni mel maanaam daal kàddu yu dëppoo wu ñu doonu ñu benn Assane Sylla di président bu parti MPE jëf ak njëriñ moom nag wane rek ñàkk ànd goo xam ne ñàkk na ko ànd ci mbir mu ni mel la mu jàpp rek moo di. list dix-neuf candidats yi nga xam ne moom la conseil constitutionnel daal di fësal ñoom ñooñu rek ñoo war a dem ci li nga xamante ni ñoo di élection yi duñu ma jamono joojee nag jàpp leen ne moom mi gis-gis ba mu gis rek bëri na ñeneen ñoo xam ne gisuwuñu ni moom ndax jàpp nañu rek kii di Karim Wade ak kii di Ousmane Sonko nañu leen éliminé ci élection ya dëppawul ak yoon kon nag lan war rek moo di ñu daal di leen delloo si ci liste yi ngir nag ñu mën dem ci élection yi ci anam mu gën a gaawee loole nag kon di proposition ya nga xam ne moo jugee ca conseil wala sax ca dialogue national bu am ci jëm ñaajo muy élection présidentielle ñu daal di ko amal ni ki le 2 juin waaye rek kii di Ousmane Sonko ak Karim Wade ñu daal leen boole wàcc di suba des xaar di fan wanante du mu jëkk taxawaay bu njiitu Macky Sall ci mbir mi nu mel waaye tamit bu conseil constitutionnel jërë ngeen jëf mbokk ni mu xibaar ci biir vidéo yeneen ni xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci yàlla àndee laata loolee leen di like di abonné ci chaîne chaîne ko ñoo ngi